bi fi bi duggé ba ñu nekk ni ndaw ñi ci seen organisation yi seen association yi ak yeneen forme d'organisation ñu ngi ciy yëngatu bu baax a baax a baax ministère de la jeunesse boo xam ne moo leen yore daal di tënk benn bataaxal ñu tudde ko programme pour xeex jàngooru Covid 19 programme boobu ñu ngi koy déroulé depuis le mois de mars tey ji UNFPA ñu jappalé ñu ci bobul yëngu-yëngu jox ñu matériel bu tollu ni bu am bu am valeur pour ñu mëna lawal suñ programme bi ci région yi diwaan yi ñu am yépp biir Sénégal té di leen xamal ni ministère de la jeunesse dina def kemtulaay kattanam pour que liñ jot ni tay dugg ci xeexu coronavirus te ñu jàpp Sénégal divisé ko ci ñetti bërëb mooy dëkk yi nekk au nord ñu war ko euh, tënk ci région Matam ñu nekk à l'est ñu war ko tënk ci Tambacounda ak ñi nekk Kaolack ci zone centre bi ci ñetti bërëb yooyu dëkk yi leen wóor yëpp ci département yi te am fa centre conseil ado wala am fa bureau conseil fa la ñuy daje ci présidence gouverneur région boobu leen di teewal foofu séddale matériel bi ginnaaw matériel bu ñuy séddale am na xaalis bu ñu leen di yéen ñoom ñëpp ci ay procédures yu leer yoo xam ne moom moo leen di permettre ñu financer seen yëngu-yëngu yi ci diwaan yi nga xam ne ñoo leen wër donc noonu lañ ko fas yéene séddale mais duñ fa yem rek c'est que bu ñu pare war nañu jox seen résultat yi parce que fas yéene nañu toucher lu mot ko fanweeru junni